ci loolu li ñuy wax rek mooy xam nga dafa am wax bu commencé jóg ñu ne euh, assainissement wu Dakar Séné Thiès dañu tànn fukki dëkk ci benn financement bu amoon te boolewu leen ci ñun nag bi ñu laajtee information yi li ñu jot comme information mooy euh, dafa am plan directeur de l' assainissement maanaam assenisement wu dëkk nan lay doxee bu Séné Thiès dañu gisee ni 1999 la donc fonds yi amoon en 2015 ci li ma office national de l' assainissement wax mënuñ ci woon bokk. moo tax bi ñëwee BADEA fonds la bu bees bu ñëw 2016 2015 bi dinañ ci defaraat 450 millions lañ ciy jël pour defaraat la euh, le plan directeur de la ville de Thiès buñ ci jógee en 2017 am na 7 milliards yi nga xamante ni état du Sénégal mobilisé na ko pour euh, euh, assainissement wu dëkk bi ak dëkk yi ko wër ñu mën ko defar mais li may ñaan daal mooy. nañu moytu un peu rek ñun waa Thiès suñu yaram day tàng pour peu rek dañuy defee ni politique moo tax bokkuñu ci lii bokkuñu ci lee pendant douze ans xalaat nañ ko ci Ablaye Wade nous n'avons pas raison quelque part aujourd'hui man tey pendant fukki at ak ñaar xalaatoon nañ ko ci Ablaye Wade tey mënoon nañ ko xalaat ci mag Sall mais actes yi ñu teg dal na suñu xel ba ñun dañuy wax ni euh, bala ñuy nekk euh, ànd ci régime dañu nekk ay élus ci dëkk bi ñu dëkk ba pare te dëkk bi ñu dëkk moo ñu gën a lépp nag mais ñuy wax nañu dal xel te instrument na maanaam jumtukaay yi nga xamante ni mu ngi fi te sénégalais yëpp am ci war ci am droit ñun dinañ taxaw ba Thiès dara bañ ko ci bañ ko ci génne mais li ñu jàpp daal mooy état du Sénégal ci wàll woowu loolu la ci liggéey information yooyu la ñu jot moo tax ñu bëggoon ko jotalee askan wi.